leeral say mbir ba mu leer nañ. ak foo mën nekk. foo mën di ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa. muy yow da nekk koo xamante ni ñaankat nga euh, nit ki boo ko xoolee dinga mën a xam ba xam kii dañ ko liggéey wala liggéeyuñu ko. waaw. nan nga koy xamee. waaw da koy xool xool tur bi xool tur yaam xool ñaata at laam hmm. ñu xool ko ci ndox. ko xoolee ci ndox bi soob suñu borom yàlla dinañu wan su fekkee liggéey la yéen ko ni liggéey moo nekk ci yow mm-hmm. bu dee daa ngelaw da ko dugg dinañ ko ni ngelaw mm-hmm. moo nekk ci yow lu mët nekk ci nekk ci yow lu mët doon mm-hmm. après yow li neex yow di nga ko xam jox la état yu wér yu leer soo si jaaree yàlla mën na laa dimbali yàlla suturaal la waaw. ñeme naa la ko wax parce que xam naa ni nga mel ak man euh, muy am ñoo xamante ni tey dañu nekk ci ay jafe-jafe. Eh, lu ñu làmb mu dëgër bunt bu ñu fëgg du ubbeeku ñooñu am nga ci ñoom pexe. waaw am naa si ñoom pexe am naa si baax parce que nit ku nekk yàlla def si yow. am ñoo xam yàlla moo leen bindee noonu laal mu dëgër lu ñu dugg di sotti lu ñu yaakaar mu tas. na nit yu mel noonu ñoom yàlla suñu borom moo leen bindee noonu nekkul dañ leen liggéey wala dañ leen def dara dafa am seen quelques sarax yu dul def parce que ku nekk day am saraxam koo gis mu def si kaw suuf. rek am na saraxam dégg su fekkee da war a saraxa ceeb nga ñëw mën a saraxal dugub am lay gën a lor sëñ bi day gën a dëgër su fekkee da nga war a sangoo sunguf nga ñëw mën a wax alxuraan sëñ bi day gën a dëgër foo nga xam lu ne lan mooy charte bi ak lu ne lan mooy yoon bi parce que koo xamul foo ko jaarale doon dem. léegi ki nga xamante ne bunt bu mu fëgg. Euh, mu dëgër moo xam mu ne Sénégal moo xam mu nekk Nigéria moo xam mu nekk États-Unis te nekk doomu réew mi te mënul jotee ci Sëriñ Mor euh, nan nga ko mën a baaxee rek loo xamante ne saa su xëyee war na ko di mën di def buntam di mën a ubbeeku. ñaar kilo ceeb. ñaar kilo dugub. ñaar kilo mboq. Mm-hmm. amul lu ko gën a efficace. donte ko mën a def chaque jour saa yoo xëyee. Mm-hmm. semaine nga koy def benn yoon. yàlla mën naa dimbali si lu bëree bëri. nu koy defee. sarax. kan la koy sarax. jigéen bu dee góor na ko sarax jigéen bu dee jigéen na ko sarax jigéen bu dee koo xam ne fi nga nekk nag am na géej. Mm. nga jël ndox géej bul ko groupe xonq groupe weex groupe xeereer. Mm. pièce deux cent ñaari cent franc nga sangoo ko. waaw. Ah, loolu boo nekkee bitim réew moom xaw ma nooy defee pièce deux cent ñaari cent. sangoo. Mm. boo paree nga sarax ko su fekkee da lool suñu boom dina la tijji loolu ngaa tëju rek jigéen encore jigéen moo gën a nooy te su ma nekkee góor samay mbir dëgër moo war a sarax dara dem sarax góor day a dëgër parce que góor daa dëgër bopp mbir yi day a jigéen parce nooy lu nekk ki nga ko a sarax lu nekk ki nga ko a jox ñu nag dañuy sa sarax yi mm-hmm. damay gis bàyyi ji li saraxal nag rek man a diw saraxal nag aji saraxe xar mu ne diw saraxel xar affaire boobu demee noonu bàyyi nañ bàyyi naxante bi ñun sëriñ si nañ bàyyi naxante bi te dimbali nit ñi rek ci yàlla tax mm-hmm. ku ne li nga xam koo su mënee dimbali ci tax dimbali ko mm-hmm. ku mu dimbali nga ba ko mu dem li ci yàlla moo ko yor mm-hmm. wërsëg yàlla suñu borom moo ko ñaar yàlla rek moo ko yor boppam wërsëg dee waaye ji loolu bu ko ñu joroon musiba am mu ñu joroon wërsëg wala ñu jor dee bakkan bi lay kon musiba am te yàlla suñu borom moo ko yore boppam